Papa. yooyu yaa ngi toog léegi. yaa ngi toog kan. benn mbaar yow yow yow loo def ci loo doon benn mbaar ba ci mbedd boobu yow yow ba ba xoj boobu noonu yow. Papa man yi kii may noonu comme dafa ma doy may xaar ma kooku suñu ma i boisson fu ma indi ko yaay yi ma naa taa wax doon dundee. yow eh, xam nga man bànn yi damaa xam yow li ngay taxawal dem ci mbedd bi di. dugg ci lu sawar ne ko da nga mënta toog ci kër boo mënta toog ci gi nga dem génn liggéey tos sa taay bi loo ma indi. yow man su ma toogoon du ma gis yooyu yow kay sant yaayee yi dox yooyu dox ba dëgg yow papa yow bànni nga de comme yow xool xëy boobu kooku moo ne de. xoolal jeex na sa succès xam jeex na de. <laughs> yow yow yow du ma ko wax kenn de. waaw kay kontaan boo nee yaa du ma ko wax kenn sama yaay yi Ah. Eh, eh. xam nga naan eh, bul wax de. ma ngi wax xam ma ngi wax xam. yaa yaa sama yéen ñëw sama yéen ñëw yaa ngeen ngeen de yaa ngeen yaa yaa. kontaan dama la xam xam ma yaa xam ma yaa xam tey xam xam. ay ngeen ngeen de yii si kër gi koo nga ma kii fa ma kii fa yi ngeen ngeen de yi jënuñ jënuñ jënuñ yi ngeen ngeen de yi. jojo yi jojo yi sama yaay yéen wax sama yaay doxan jojo yi ñoppi ñoppi loolu ñëpp yi mën naa eh papa yi papa yi papa xam nga yaa bëgg sax yow toogal toogal toogal yi nekk ci kër gi tóotóo yi saxam yi yow fay yóbbu eh ñëpp ñëpp fay yóbbu yi nekk ci kër gi tóotóo sama yaay booy. faas ko faas ko ci suuf. faas ma de si dama koy dama koy bàyyi mbay nga am faas yow sax sama yaay su waxee nga ñëw yi këpp kaan yi yi këpp kaan yi nga ne nga ne yi yéexee nga ne kër gi ma kii fa kër gi ma kii fa kër gi kii fa kii fa fang nga kii fa yow nga fang nga fang ñëpp digo, você digo meu boto, eu nem boto que deu. Eu tá aí, aí, aí, de fique viu. Tá vai coletivo. Tem minha, mamãe é minha vez. E tu, digo eu e e boto. Lembra lá. E boto, boto no mundo na. Uai, mas não é lá. Eu li que isso boto aí, na eu subo de quem é eu. E eu põe, quem que? Eu eu santei aqui da vai eu. Que sabe que sai do que mostra dele. Sai, e e da, eu eu boto, mas eu boto. Eu eu vai dele. Eu sabe, eu sabe. yooyu tey. ah waaw après après nga même cent francs dégg nga. eh après nga même cent francs. eh waxuma keneen di laajuma eh wax waaw yow. kii nga ne nga ne boot ma kii boot de eh si kii waay maa ko i i dootoo yi nii i ay fas i papa yi. waaw boo daanoo mu ne yaay. yaay am na am na am na am na mooy tax rek damay damay daan. ah kon yow yaa ci defar defar defar dégg nga sëggee waaye papa sa dënn bi day yàqu yow ay di yànke rek ngay wëy di wëy di wëy ay di yànke sëggee birig moo ci daloon xaaral ba sama yaay dayaat sama yaay xam birig moo dal sama yaay bu ci dayaatee yéen déey yow aja ay na laay jaay ñii jaay ñii jaay jaay jaay yéen da boo crochet man crochet wu ma laay dox waa yéeg dama yéeg dama yéeg dama ay ay ay papa dafa ñii jàdd nii boo defee boo defee boo defee dañuy jàdd nii fii code bi nii yee code code nii code. benn boo nii nii ngay def. isa isa xam nga leen. te eh, code yaa jox damay li ma li ma la boon ni fii lay jaar suuf. waaw waaw yéen dem yéen dem yéen dem yéen dem la code. damay côté bii ngay papa wala yaay yaay. ñu doog a lool sama yaay léegi. bës na bës na sama tànk bës na sama tànk bës na sama tànk yi sama tànk yi ñuy métti yii bës yow papa yi kii yooyu. sama mbaxam jox ma ko. kii bëse yi papa moo gànde yaay. yooyu toog tamit ah waaw ngeen ne ngeen day ne si kër gi lii lan la yow. yow yow man di jaay yow. kii toog si kaw yow nga jonkoon si suuf. yow tegaat nga man nga naan dégage yow. daa tee kan yow daa tee kan. yow yow yow war yow yow bu bàyyi soog ta nga bàyyi gone ah yow yow ku sob nga. ba si yow nga jonkal si suuf moom mu toog si kaw. dama ne la kii bu bëggoon ne la lu raw def ko. ko defal ndax mooy sabab taaw sama xarit. boo yow yoo xam ne yoon. nan moo ma yot yaa ma. ñu bàyyi yooyu yoon. soo nekk ci lu koy wax. Eh, kii nan moo ma yot yaa ma nga ndey bi ah, papa yow ma yow. Amadou aw a ndax ndax yow yaay sama taaw bu góor waaw te yow bu ma fi na voilà kon nag il faut il def kon def leen lu leen sax. waaw kay eh, day sama xarit. yaay papa gis nga sama yaay bi xam nga yaay wooy def sama yaay bi dañ ko wooye dañ ko wooye fase fase fase épervisé mu jëm kii yaayam yowee dimbali ma de yow kii may wax nii mais fase fase épervisé xam nga dafa may fase ah papa yaay may wax yaay yaay xam nga mbaa yaay nga mbaa wala fekk ah xool yi toog yi toog si biir kër gi nii benn kër après benn xale bu jigéen jeyam ya jeyam ya di yàgg yow eh, eh, yaa mën eh, yaa mënoon tuul. Mm, mm, mm. bàyyi kii ma ñëw mu wax. yow kon sa bés bu métti bi lii moo ko waral. yi yi toog papa yi yi toog foofu yaay ya après mu toog xëy bu jigéen bi mu génn si biti fekkee mu taxaw mu ne ma. gannaaw kay kay dañu ma boisson. après man yi yi yi dem dina koy yu ma naat dina koy yu ma naat digg kër sa papa tëddee yàcc écarté yi yàcc foofu ñoom ñaar. kii xamal yow kii dox na kii boo xool dox na boo xool dimbali ba may ma sama jàmm. benn laa lay xamal du doon ñaar. ma jël biir laa maa ngi fiy toog di daaw kenn du ma fekk samay bagage na dugg jël kam ranger ma fi am dem sama kër ndaay ak sama kër baay. toog boo paree nga fekk ma te a baat ma fa fekk ma xool beneen góor ba ma mën a raaj. ma def ko baax. yaay maa ngi tey fay yaw yow maa ngi tey fay yow bu wax de. yow léegi nag laa la xamal yow moom dalay leer ni maa la mën yow. yow moom dalaa leer leer leer yàlla ni man maa la mën. papa ñoo ayaab yow yaa xam. yow yow yow papa papa sa papa papa sa tay du génn kër gi. papa sa waay sa waay ay dem de sa waay ay dem de. yow yow sa.